gars na ne ko wër nga mun a waaw mun a ko dem nga ci ku ñooy wax Cheikh Ibrahima Fall misiri na ko déet àgguñ kooku ah kooku am na mu ne ko kooku am na waaye àgguñ ca misiri na ko waaw kooku am na waaye yegguñ ca waaw bu sëriñ bi toogee ma door a yeggali wax boobu wax bi dafa am solo dafa baax ci ndaw yi dafa baax ci xale yi misiri na ko wër nañ ba sonn waaye àgguñ ci ki tudd Cheikh Ibrahima Fall li ma wax ni waxi bàyyi la ñu ñu jàng taarixi barki démb yi nag duñ xam li wax li moom mag ñee ko xam bàyyi ko àgg Cheikh Fall mu ne ca ko kun alimta shay'an wa wa anka ashiyaau kun di alimta shay'an wa anka ashiyaau su fekkee ne dem nga ci Ibrahima Fall ci Cheikh Fall Cheikh Fall mu mu ah kon rek nga xam ci kon de soo wër bi li muy bëri bëri ak gaañ ñi li ñu leen wër wër lenn rek nga xam asidaara rek nga mbir yu bëree kon faat na la danaa ko Cheikh Ibrahima Fall mu ne mu solaat dàllam fekki maa Ibra Fall kóosi loolu nag mooy yoonam mu njëkk gannaaw bu mu jàppee ci bàyyi dem demati waaye dajeeg maa Ibra Fall moom ci jotaay keroo la njëkk moom kon bàyyi moo ko imlaa ne ko demal nga seeti Cheikh Ibrahima Fall moom fa la ñooy xamee asiyaa yi gaa sëy rek nga fa mën a xamee ab lëf rek nga fa mën a xam waaye boo bëggee xam asiya yi da ngay tase ak Cheikh Ibrahima Fall ma ne li xew léegi yàgg na di ndeke naari gànnaar yi yàgg na ñoo foog ne ñun xàgguñ ci maarif yeeg xabaraat yeeg léeb yi ñun dañoo foog dafa am luñ ci xam ak luñ ci xamul misiri mi mi mi ponkal mu mag mi alxaariful zani fi tariqati wal faydati moom la bàyyi wax ne ko soo waree muqaddam yi alimta shay'an asim bi rek nga xam waxaaba anka shiaw yëf yu bëree bëri réer na la mu dem Cheikh Cheikh Ibrahima Fall waaye bañ fa bàyyeekoo mu jox ko loxo ne sëriñ bi daal ndeke lu ne def na ko. mooy 1986 Baye Kabir Faye dafa gaañu Kabir Faye Gàmbi la gaañoo ñu ngi ko rob gannaaw timis guddi guddi leen ko rob commune dina xam nga li may wax maa Ibra Fall ñëw ci xabru bi jàmbu xeebu bii tudd Ibrahima bi tey daw dugg ci jumaa ji lem fa benn basan man ma daw dugg ci juma ji lem fa ben basam kuma andaton rek kero da nga xamne li mako def man li ma wax ni bima ñewé de ko ci lalal suuf mu ne dede dede dede fi suuf ci sang bi la bu ko bu ci lal dara dede dede dede fi suuf ci sang bi la bu lal dara daa di toog ci suuf ma tok ci suuf waye ma ma am ful la bañ ko robé ba pare ma gunge ko ak lam guddi guddi ba ma ko gungee ba kërëm mu dagalay lay lay lay yu ma bëgg wax nak mo li dana dagalé ñu bari seenu lay mu ne ma jege ma déet astafurlaa maa ko jege ne ko maam ñaanal ma ba ma ko jege mu ne ma xam xarit bu mag xarit a baax ma ne ko ah mu ne ma Cheikh ma Tidiane mu bàyyi mooy alxalifatul xaali yal yàlla yàggal ko fi tamay ko wér mu ne ma Cheikh Tidiane mii maanaam ah, mu ne ma moom ak xarit lépp lu wax ci Kabir Fay dëgg la mu ne ma xam nga wax na ne Kabir Fay xàggoon na ci maqaamaam su rombee bant mu tëdd mu ne ko jogal ñu ànd jaamu ji yàlla bant bu wow loolu Cheikh Tidiane Niass wax seetaan leen youtube yi dellu leen ci kase gi ak band yi li ma wax nii ngeen fay fekk yéen Pape Cheikh dafa wax keroog ne te biir a ngi nii xàggoon na ci yàlla foo xam ne bu rombee bant bu wow su ne ko jogal ñu ànd jaamu ji yàlla bant bi dana jóg ànd moom ñu dem jaamu ji yàlla